waaw macha allah mbokk yi gis ngeen liquide vite fait baa ngi noonu vite fait bien fait jinne xam ngeen vite fait moom euh, duñ ci taay di wax ndax li ci nekk moo bari ay mbir la ñu composé yi bari ba pare tëju def ci baatin bu wër lépp a ngi ci alxuraan a ngi ci nooraane zulmaane maanaam xam-xam mbooloom mbootu xam-xam bi nga xamante ne day dimbali doomu aadama yi mu ngi ci vite bii nii maanaam dañu ko liggéey ak liggéey bi nga xamante ne dafa ànd ak qualité ànd ak baati jinne yi ñemewuñu ko rab yi ñemewuñu ko dëmm yi ñemewuñu ko seytaane yi ñemewuñu ko bépp liggéey tam bu mu fekk ci nit ki da koy dindi ba mu set wicc macha allah day mel ni weexal maanaam bu fekkee yëre bu tilim exemple xam nga yëre bu tilimee ba tilim ba mu tilim boo ci defee weexal yëre bi day weex tal maanaam noonu la mel nag macha allah maanaam kii àdduna bu tukki àdduna bu tukki dëmm yi la ak jinne ñemewuñu ko volcan gis nga kii macha allah dañu ko liggéey liggéey bi nga xamante ne spécial vite fait vite fait nag macha allah mboo maanaam mbootu yi mu dajale moo bari gis nga jinne dañ naan cerno xanaa li kaani la xanaa poobar la xanaa asib la parce que daf leen di lakk daf leen di sonal tey jinne bu dëgër bopp bu ne boo ko sottee vite fait bi day am problème maanaam day sonn wala kër bi nga xamante ne dañ ne dafa bëri ay jinne yi fa nekk di yàq wala nangam yii boo ba jox la ko macha allah boo ko fa defee jinne yëpp ay abale foofu kon nag macha allah gis nga ko noonu saa su ne ñi ñaa ngi ñëw ci kër gi di ko di ko ut si fii ñu ngi koy yóbbu bitim réew partout dans le monde États-Unis France ah, euh, Maroc Dubaï Chine Inde ba Arab Saoudi ba Italie Allemagne ñi ñaa ngi ñëw di ut si vite fait aussi ñoo ngi def ay commande parce que dafay dimbali nit ñi maanaam da leen di jàppale ko parce que jamono ji léegi jinne yi dañuy sonal nit ñi rab yeeg dëmm yeeg yooyu lii rek moo mun ci ñoom dara lii mooy seen solution lii mooy seen mbañeel maanaam boo déggee anti jinne anti dëmm anti rab lii mooy seen anti maanaam ñemewuñu lii macha allah léegi nag ñu jébbal ko gars yi ñu ñu jébbal leen ko macha allah ñu utiliser ko ah. comme ni ngeen ko déggee ni ko sëriñ bi waxee nit it feekat moo ay ci jinne moo ay ci dëmm kon nag gaaw leen ñëw wut si ko parce que ñàkk ko am ndax wóorul